Souka. kuy sa gan. te El Hadj Malick Gakou. dafa dafa jëlaat sax avion ñëw. ñëw ci li nga xam ne. xam nga mi ngi woon Casamance. yaaye <laughs> yaaye. mere gi ma la mere El Hadj ñu ngi lay nuyu gàkku. Euh, maa ngi lay fay maa ngi am mm. mbégte ak kontaate di mm. di la nuyu. di wax mm. ni dama bëgg gaaw émission bi rapidement parce que je vais retourner Rabat euh, au parce que actuellement dañu nekk loo xam ne bi ñu ngi ci yëngal yi yëngu-yëngal yi fële ca Casamance te <laughs> vraiment yàkkam naa pour delluwaat. El Hadj lan yow léegi damaa bëgg a xam nga wax ma lan ngay wut euh, Casamance. Casamance dama dem seeti sama doomu ndey sama xarit. Ousmane Sonko sama doomu ndey la. sama doomu ndey la sama xarit. Euh, ki nga xamante ni kii macha allah Sénégal dañ ko jox bopp comme niñ ma joxee bopp. kan. parce que euh, Sénégal. boo seetee ñu bari dañuy wax ni Ousmane Sonko ak Balika ku fi ëpp doole. déedéet Ousmane Sonko nga xam ni moom moom moom. Eh, diir ko yemale mag de. loolu mooy li nga xam yemoo leen ay mag de. mooy li Sénégalais yëpp di wax. Euh, Ahmed Aïdara nee na ma. yaa yaa yaa ah, ëpp yaa ëpp ah, Ousmane Sonko doole. kan nekk loo euh, Ahmed wax na ma ko. yow est-ce que yow boo yow boo leen bul wax loolu. bul wax loolu yow waxal li ngay wax rek ba pare mu tudd ko Ousmane Sonko. Euh, parce que bu ñu boolee suñu ñaari doole yi. man ak moom on peut faire face. et eh, damay jug de Adja boo ko waxee léegi ma jug de. waxuma def face. on peut face à la Russie. paa sax. man ak Ousmane Sonko doole Ousmane Sonko ñu bari dañ koy wax taasukat yi dañ koy wax doole usmaan ak Sonko doole usmaan ak Malick bu ñu booloo dafa nekk doole boo xam ni doole bu am solo la. yow loolu nag nekk loo xamante ni bi lu am solo la. ba tax na bi ma demee apporté ko sama soutien ci la xam ni. ponk bi nga est-ce que yuuxul la. bi ma ñëwee dañu ma kii man ak Aïda Mbodj ñoo àndoon ñu bari xàmme wu ñu woon Aïda man lay xàmme ne Malick Ngok Malick Ngok la force est là. yow au contraire dañ gën a xàmmee ci laa ñëw après ci lañ ma wax ne ma. Mhm. Aziz Malick ginnaaw ñëw nga léegi sunu xel dal na Sonko ne ma sunu xel dal na. parce que il faut que ñu amoon benn force bu mel ni sa force bi le grand parti. daal di ñëw soutenir ñu parce que bu ñu soutenir suñu xel day dal vraiment loolu nekk loo xam ni lu am solo la loolu nekk loo xam ni macha allah euh, Sénégal ñëpp teg nañ ci seen bët muy la force Gakou et la force Sonko les deux forces la yi nga xamante ni bii ñoom ñoo nar a li nga xam ni mooy le combat. yow yow li nga forcé bari di nga bëgg a forcé mënul euh, am hmm. mënul ne parce que yow amoo doole nit ñi xamuñu la amoo bës amoo doole euh. amoo bës nit ñi xamuñu la géejawaay gi nga amoon bës di tey ko mbër yi ànd ak yow ñooñu ñëpp bàyyi nan la hmm. benn nga bëgg jël sa bopp tëkkale ko ak Ousmane Sonko mënul ne Ousmane Sonko la ëpp doole foofu ba nga fa demee démb gis nga da nga ko gis euh, dañu def ñaari sondage benn bi moo ma raw benn bi maa ko raw <laughs> parce que sondage yi ah loolu nekk parce que bi ñu defee premier sondage man ak Ousmane Sonko Sonko ma raw mais bi ñu defaatee sondage après ma raw ko maanaam man ak Ousmane Sonko dañuy rawante eh, ci bis yi mën na ma raw tey suba ma raw. ñu waxtaan orantem nag. ñu waxtaan rek ñun ñaar kese keneen bokkul est-ce que yaakaar nga ni am nga doole Ousmane Sonko am dama lay waxtaan rek. Euh, bàyyil ma jafandu ci dooleem pour doole doole parce que loolu c'est très important xam nga aussi. il faut boo fi nekkee ci plateau yi. Mhm. il faut nga ngand ngandalu. Mhm. ubbi dënn. waaw wane ni man ngand laa. Euh, loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la. Uh-huh. mais ku ne xam na ni Ousmane du kenn ci ñun. ñun sunu militants yi sax. léeg-léeg dañ ñuy tiitalee nañu ñoo ngi dem ci Ousmane. merci déedéet il faut que buñ la laajee xaalis sax nga bañ ñu ne la ci Ousmane laa jëm il faut nga yëkkati dara jox leen parce que sinon dañuy dem. je pense que man soxna si sax keroog daf ne ma. Ousmane mii kat jar naa jàppale. Ah. donc euh, Ousmane Sonko vraiment moo ñu ëpp doole. mais loolu ñun nangu nañ ko mais nag bu ñu nekkee ci plateau. dañuy ngand ngandulu euh, parce que ngand euh. ngandulu moo baax jërëjëf El Hadj Malick jërëjëf El Hadj liggéey bi rafet na hmm. ñu yaa ngi en direct waa euh, Adja ah. ba suba insha allahu rabbi Sonko ëpp ma doole <laughs> maa ko ëpp doole def na ñaari sondage mu raw ma benn ma raw ko benn jërëjëf jërëjëf Gakou <laughs> El Hadj jërëjëf bu ñu àndee dañuy permanent temps bi jeex na jërëjëf <laughs> mais xanaa ah, da nga bloqué woon temps bi temps bi eh. jeexul de. Eh. ah su kaa jeexle woo de. <laughs> temps bi des na sept minutes. de pas set minutes euh, kii. cinq cinq cinq. yuuxu waaw dana wax kon ci UR. lu tax kenn yuuxu lu tax kenn xale yow leen bëgg. mais xale ah. am technique. ah parce que dama ñëw yéen. ma ngay wax daan na salaamaaleykum. Mhm. Ousmane Sonko day bokk Macky du bokk. Eh, macha allah loolu mooy caabi waaw caabi boobu boo ko jëlee boo ko dugalee. xale yi ubbi la. waaw xalifa nag dafa nekk naan li di layam layam yi. comme li Dame di bañ. waaw booy ne ko wuuu. mais nag nag ba pare di ko sotti ndox loolu nag rafet na élage rafetul mais nag mhm. boo yooyu kenn mënu ci ñoom dara kenn mënu leen mhm. lekk ñu dërëm kenn ginaar kenn mënu dëgg la dëgg la mhm. booy yi kenn mënu ci ñoom tous donc man booy yi ay booy lañ waaye booy yi daal vraiment ku yebu ne grand yi dëgg kenn mënu ci ñoom dara <laughs> donc àdduna incha allah noonu jërëjëf Soukaya Mbaye Dany ñu ngi lay jaajëfal jaajëfal sa gan moom El Hadj Maguette